clair eh, xëy na soo ma gisee da ma xam mais mais da ngay laaj sa ñaare ndax xam na kan mooy pël bu rafet rek nga yam foofu eh, man yaakaar naa ne yow da nga fàtte ne nit ñi xam nañ. kan moy sa yaay yow ya xamul ne nit ñi xam nañ te aussi am na ñoo xamante ne fi tey li ñu mën a wax ci yow lu bari la te it kër jaambur yi ngay tàlloo Ousmane Tounkara mun nañ sa kër yaay bu Dakar ak bu Vélingara waaye man néeguma ko def parce que maag moom dafa am nu mu demee dafa am lo xamante ne nañ ko te aussi kóllëre boobu euh, tey jamono metti na waaye euh, ku ci gis ji rek da ngay ràppi ràppi moo tax nag moom mënu ma ko yéenee lu bon parce que ku dem ba yéene la sa yéene ko peñe bi mu yor nga ci ndékki di ci reer di ci njoganiku di ci añ kooku mënoo ko yéene lu bon mënoo ko yéene ñu taal këram mais bu dul woon loolu am nañu capacité dem ba seen kër taal ko taalaale sa yaay taalaale say mbokk yi mais kulëre gannaaw lay féete déet Ousmane Tounkara sa lépp neexuma dara neexuma ci sëf sa gémmiñ sa gémmiñ gi de am na ñu mun a xari parce que rëy na lool ngand na lool mais man sa gémmiñ dafa am lu may jox moo tax sa gémmiñ kese moo ma neex ci yow këpp damay koy wax sénégalais yépp këpp koo xamante ne kii gis nga gémmiñ Ousmane Tounkara imagine benn yaay bi ak gémmiñ gi benn la loolu rek moo ma neex ci moom parce que këpp ku lekkul benn bi doo xam ndax benn la wala du benn mais man mi doon lekk beñe bi di ci ndékki di ci añ di ci njoganiku di ci reer su ma leen ko waxee rek gum leen Ousmane Tunga sa gémmiñ gi kese moo ma neex ci yow li tax mu neex ci neex ma nag borom xel yi laay waxal nañ imaginer lan moo tax ma wax ko waaye dimbali leen rek audio bii na dem ba yegg ci ci yaayu Tunga ci Ousmane Tunkara yaayam mom wax dëgg yàlla léegi ma ko wax lenn mais nag Ousmane Tunkara moom dama koy xamal sa bopp man sa baay jiit lee laa sa baay jiit lee laa beñe bi maag sa papa vraiment neexul ba neexul dañ ko bokkoon muy lekk wet ga may lekk wet ga des fois sax man maa koy ëppale lu parce que dafa doole man